xam nga domaine bu ngay ku ne domaine bu ngay nga koy maîtriser sànq wax nga ko maître euh, Abdou Mar je crois euh, moom li mu wax ak li ma déglu maître wax dafa wuti parce que maître dafa ne carrément bu Sénégalais yi nax seen bopp jugement bi ñu àtte Ousmane Sonko tere na ko bokk élection. mais loolu wax ci biir. mais Penda Penda Penda xam nga ne xam naa maître Abdou Mar. xam nga ne mbir mii bi mu ko waxee woo naa ko moom moo ma wax. expliqué non dafa nag rek. on est là pas pour xam nga. non non non c'est-à-dire damay bëgg mu bañ a na saxal xel yi. naan maître Abdinaar xam naa ko. xam nga ko man ak moom. non non non attends attends. boo ko wax li mu wax dëgg la. dëgg la s'il te plaît. maa ngi dégg rek jeex na. non s'il te plaît. s'il te plaît. non attends tu peux pas manipuler. non mënoo mënoo. non non non s'il te plaît non pas Moussa pas Moussa. non non Penda. Penda. donc soit il a soit il fait le débat ou je lui laisse pas parler. non non tu peux pas parler wax nga ba jeexal. dañ lay déglu yow non non day ñibbi non day day noppi. yow yaa am sa parole yéegali. xam nga bii muy wax dama kaa mais Pa Moussa nekk mu ma gan gan a déglu. d'accord nga sa xalaat. na xalaat ñun ñëpp ñu ngi lay déglu yéegali. fu ma tàmbalee du ma juriste du ma avocat mais li Abdinaar wax. moom moo ko soulevé ma ñoo fekk si ko ci. d'accord moo ne carrément sénégalais yi bu nax seen bopp Ousmane Sonko jugement bi ñu ko àtte xañ na ko élection point. Mm. ci loolu la ñuy wax te bu fekkente ne moom c'est un juriste il peut pas être plus roi que le roi mooy l'avocat de Ousmane Sonko ci boppam moo wax. mais gis nga tamit explication yu mu indi. non dama ne ay explication Pape Moussa. sur la candidature d'Ousmane mais c'est un juriste. non dama ne moom lay engagé juriste moom juriste moom moom lay engagé de man xam ma engagé. avocat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci tribunal bi di plaider Ousmane Sonko seen i discours seen i débat ak ñoom ni ñu jàppee woon mbir mi man seen kàddu moo ma gën a amal crédibilité gën ma amal légitimité que may déglu keneen koo xamante ne day joxe avis d'accord d'accord léegi dans ce cas là léegi dans ce cas là yow déglu nga li nga xamante ni moo di sortie bu maître Addina wax bi nga xam man maa ko souligné léegi euh, revenir ci ay propos boo ko jëlee méngale ko ak li nga xamante ne explication ñu Pa Moussa jox bu mu fekk si tamit kàddu yi nga xam Ousmane Sonko wax wax na ko rassuré ni sa candidature reste intacte ban gis-gis nga ci am waaw xam nga tey euh, lu jëm ci Ousmane Sonko mais sañ-sañam la droit am la devoir la que mu jàpp ne ba fi candidat la Pape Moussa dafa joxe analyse en tant que juriste. yow loo jàpp mën na bokk wala man li may jàpp mooy avocat bi nga xam ne moom moo bokk ci procès bi moom moo génn def point de presse ne carrément moom atte bi ñu atte Ousmane Sonko teel na Ousmane Sonko bokk ci élection point keneen koo xam ne wax nga damay jàpp ne sa waxi bopp la boo jëlee article 29 ak L30 ci code électoral bi boo ko liiree ñoom avocat yi nga xam ne ñoo nekkoon ak Ousmane Sonko dañoo sukkandiku ci L29 wax ak li L30 naa déglu Bamba Cissé. ci projet procès yi Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ci 6 mois diffamation moo waxoon ni lii lii Sénégalais ba ma ko seetaanee su fekkente ji Sonko jëlee na ci condamnation. mooy loolu voilà waxoon na ko. xam nga kon Bamba Cissé mais aussi li ñuy wax ni c'est des faits. c'est xam nga lan laa wax. xaaral xaaral xaaral dama ne bu ñu defee recours. li waa PAM nekk mu daaneel. après yow wax yi nga euh, wax yëpp loolu yow lay engagé man say wax ma déglu. kon léegi léegi da nga may may man damay wax waxi maître Bamba Cissé. wax wet waxi maître Abdi Naar ñoom ñi nga xam ne dañoo ah, nekkoon ci tribunal ba. yow say wax. mais xam nga PAM Sall wax lu mu wax. PAM Sall dani. bu juge tey bi ñaar ñoom ñëpp la ñu wax am ah, na. léegi su ma toogee ba dégg avocat wu Ousmane Sonko wax loolu ak maître Bamba Cissé ak bii wala ma. waaye yow doo avocat dimbale ma. <laughs> da ngay juriste bu ngi joxe sa xalaat rek. waaw dama ne te juriste te juriste Sénégal yi. juriste Sénégal yi ak société civile bi. may ma juriste Sénégal non non dama may déglu mais kan may may wala juriste non non dama ne déglu dama ne juriste Sénégal yi ak société civile Sénégal gi. loolu ñu ci bari duñu leen xàmmee. d'accord mais ndax am nga mais mais Pouy ndax am nga. moo tax man je parle sur la légitimité. des avocats yi nga xam ne ñoom ñoo prononcé wu. ba pare ñëw ci légitimité aussi article L29 bu code électoral ak article L30. mais par li nga xam ne dañ koo bind mu méngoo ak li avocat yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Ousmane Sonko ci salle ba wax. laaj naa ko Paa Moussa dama la koy laajaat euh, suite logique bu euh, li ci war a topp bu ñu gisee tey ji levé nañu blocus bi Paa Moussa nee na fu mu ne nii mun nañu xaar attaque ñu dem jàpp Sonko à tout moment. man. ci li ma jàpp état euh, justice Sénégal bii. ou qu'il se constitue comme prisonnier. justice Sénégal bii bu Ousmane Sonko constitué comme man jàpp naa ne jàpp nañ ko prisonnier d' abord def ko prisonnier prison prison la nekk d' abord ci li ma jàpp parce que tere la dem ak dikk tere la seen nit si la loolu prison la. non prison mu ngi mel ni résidence résidence exemple ci moment boobu. oui mais dafa mel ni jeex la nekkoon lu gën a garaaw sax prison résidence surveillée moment bii nag levé nañ blocus bi état du Sénégal ministère à travers le ministère de la justice fa mu jëm xamuñu ko. mais man li may jàpp te gëm ko mooy justice Sénégal dina teg Ousmane Sonko loxo dana ko jël yóbbu ko dugal ko ci kaso comme ni ñu attee citoyen lambda sénégalais bi ñu atte jël ko yóbbu ci kaso. man loolu laa gëm mais est-ce ah, que c'est ma wax la. ñu gisee événement yi fi amoon c'est risqué ou c'est pas risqué justice Sénégal dina def li nga xam ne moom moom la ko procédure pénal may moom la ko droit ak texte yi may ak règlement yi nga xam ne ñoo régir l'état du Sénégal justice Sénégal dina ko defal ba mu bot sëkk. parce que nag état bu faible wala bañ affaiblir l' état mooy bañ jël ay décisions yi nga xam ne moom moo méngoo ak texte yi nga xam ne état du Sénégal moom ko constitué. d' accord donc état dina def li nga xam ne moom moo war après nag li ciy topp ce sera les perspectives ci li nga xamante ne gars yi ñu ngi koy xalaat que ne buñ ko dugalee kaso li fee xewoon mun na fee xew wala lu ko rab comme buñ ko dugalee kaso. négociation mun na comme buñ ko dugalee kaso mun na am beneen façon procédure judiciaire buy amaat comme comme comme yi mooy bari ce sera mu nekk ay ay ay ay ay ay appréciation individuelle yoo xamante ne ku nekk nga koy xaar mais appréciation bi nga xam ne moom laa jàpp ne moo légitime te légal mooy bi nga xam ne justice Sénégal li ñu ko jël su weesoo tey ah liñ naan euh, ñëpp a ngi seetaan. justice dina def li nga xam ne moom la war a def. ci li ma jàpp Pa nga xamante ni yaa ñu gën a jege ay avocat Ousmane Sonko ndax tey jii mën nga ñu baaxee xibaar ci moom sa à dire actuellement nii fan la nekk parce que bi mu nouvelle amee tamit dégg ñu ko mu wax chef protocole am lañ dégg gis mu taxaw ci buntu këram euh, wax kàddu bi nga xamante ni moom Ousmane ko wax na ko. waaw léegi ak tamit lu ni comme fu finalement levé nañu blocus yi ndax Ousmane Sonko fu mu ne nii mun na vaquer a ses occupations bu bëggee sax delluwaat Ziguinchor euh, en tant que maire mu dem fa ngir mën a lijjanti ay soxlaam waawam déet. rien ne la liberté d'aller et de venir de Ousmane Sonko dañ koo teg deux ans ferme hmm, le procureur a travers euh, mooy ministère public le parquet moom mooy euh, exécuter la décision de justice ci moom la dépendre dépendul ci Ousmane Sonko. tant que euh, exécuté wuñ ko jàpp moom il est libre d'aller et de revenir. waaw mais dañoo gisoon nag ba ñu installé blocus bi sa à dire mi ngi doon génn def ay sorties ay sorteem ci ci ci ci ci ci ci presse bi ak yu ni mel mais euh, gisatuñ ko muy dem ak dikk. waaw laa wax loolu ñëpp xam nañ ne c'est illégal ñëpp moo tax ma ne laaj nii la ndax instant bi comme lëbe nañu blocus bi. amul dara lu. lu tere ci loi lu tere Ousmane Sonko dem ak mu nekk jamono ji mu ngi këram d'accord léegi autre question. bi nga xamante ni ma leeral oui rapidement. parce que aussi il ne faut pas qu'on damal d'amalgame dama ne six mois kuñ ko teg yow loo bokk ci élection. mais day fekk que le jugement soit définitif. waaw loolu moom comprendre nañu ko oui loolu wax nañu ko. Euh, la répétition est pédagogique. kuy bàyyi bi ñu menacé nag naan dafa am leneen. non dama non parce que Pape Moussa ci nga ne nag. moom it da gën fi mu ne. waaw mais yow it gën a ci nga. non non mais dafa am parce que Pape Moussa mënut a ñëw rek tënku foofu rek. waaw d'accord. léegi Pa Moussa. depuis que ñu commencé toujours c'est les mêmes propos. d'accord ah, d'accord Pa Moussa euh, ba tey euh, concernant Ousmane Sonko suñu confrère euh, di suñu grand aussi ci wàllu tasawut xabaar yi Madiambal Diagne dafa génne livre tuddee ko Ousmane Sonko Adji Sarr l'histoire ni jot na entretenir wu ak Adji Sarr expliquer aussi lu a livre bi ni dafa nekk livre bu nga xam daf ko génnee parce que cette affaire là dafa concerner sénégal yépp